nee nga téye moytu koo dóor. <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sunu gars yi doy waar yi yàlla mu daaneel caméra yi. yow xakataay maa <laughs> ko tey. non Jérôme dama doon xalaat mu jam Ousmane sax parce que moom à tout day waaj a. Ousmane ko man bi daa <laughs> euh, ci les astuces de dama ciy kontaan nag dama ciy bëgg ndax ku ne xam na ne euh, fi ñu toll nii dafa mel ne ngelaw bi dafa commencé upp daal féex mi di upp. xam naa sedd nag dakaar gëj na sedd nag man loolu jaaxal na ma Jérôme loolu xamoo ci lu tax loolu lan moo am. tey ñoo bàyyi ah. sedd dafa gëj a am Dakar. Eh, ñun soxlawul seddaay tàngaay bi digg nañu point. non non tàngaay moom baaxul. baax na ci ñun. alors Fatou comme gis nañ ne commencé na sedd euh, ñu demoon doxantu xoolal leen suñu benn cosmétique bu nekk fii à côté. Mhm. mu xoolal ñu ba xam gaa yi nga xam ne seen yaram yi day faral di fett. Mhm. di xar ñi seen tuñ yi di xar ñu xool ba xam am na ñu ci solution xam naa dañuy xool suñu réalisateur bu ñu ko mënee woon rek ñu xool ñu ñu ñëwaat voilà ñu ngi fii ci euh, Devoir Liberté 6 yi ci seen cosmétique TMC di jaay yu baax di def yu baax ndax ku ne xam na ne sedd baa ngi ñëw am na ñoo xam ne seen yaram it baaxul dañuy xar ñi seen tànk di xar loolu bëgguma ko daal surtout ci borom jëkkër yi ñi nga xam ne seen tànk yi day laal ay dara ñu fekk fi nag suñu càmmiñ bi xam naa dinañu mën a dimbali ci loolu secret yi ba xam am na fi nuyu nañu la. waa ñu ngi leen fay. ku ne xam ne ne sedd bi di ñëw da gis ñoo xam ne dañuy tooñ suñu mbokk jigéen yi sax naan leen seen tànk yi day laali dara parce que dafay xar tellement que ba dara bu mu laal day laale ko est que am ngeen ci ay euh, saafara bien sûr loolu chaque jour ñu am ci ay problème mel noonu parfois ñee euh, lu ci ëpp loolu process moo koy waral wala ñu nga xam seen tànk yi dafay day woo loolu yëpp boo xoolee euh, ci ñàkk toppatoo sa kii la mais am nañ produit hydratant yoo xam ne boo ñëwee ñun ñoo koy composé bu ñu la ko joxee dafay hydraté tànk yi bu baax a baax xam ne boo ko boo ko diwoo rek tànk yi day nooy parce que tànk boobu tamit faaw mu xar mais am nañ produit yoo xam ne bu ñu la ko defee dafay hydraté te lépp foo xamante ni boo jëlee produit hydraté ko lépp lu hydraté dootul wow ñàkk hydraté moo koy def parce que même am na yaram yoo xam ne tamit bu woowee mooy waral yaram bi di di xar waaye su ne am nga ay produits yu baax yu composé ne boo ko defee dafay niin dafay hydraté loolu à chaque fois saa ko defalee nekk bu diwee saa yaram bi hydraté yoo yooyu moom. na am euh, ñu ko si saafara. bien sûr moom laa lay wax ba léegi loolu en général process moo koy faral def loolu euh, en général boo ñëwee incha allah nañ taxaw bu baax a baax comme ni mu waree bu neexee yàlla loolu amul benn problème loolu bu yàgg la woon waaye léegi pro ak produit américain yi ak Touba Mondial Cosmétique loolu yëpp boo ñëwee incha allah loolu nañ ko loolu du problème. dama composé yéen koy defar mais est-ce que yéen a ngi xool produit yi ngeen ki jël ko mu indil ko problème. waaw laal am solo parce que ñun Touba Mondial Cosmétique à chaque fois dañuy faral di wax ne. dañuy tere produit yu am effet secondaire produit yu am chimique wala yu loolu dañ koy tere parce que ñun fii comme pharmacie boo ñëwee bëgg a produit bu am chimique wala bu am hydroquinone dañ la naan bu ko laal parce que bii boo ko laalee dafa lay jox lunette dafa lay jox vergeture dafay fort ci yow kon boobaa dañ lay produit euh, dañ lay proposer produit américain ak produit français yoo xam ne du amul du amul hydroquinone amul clobétasol amul curtiquine amul chimique waaw loolu ñun xam nañ ko bu baax a baax ndax dañoo formé. diw yi nga xam ne moo doon lañ doon utiliser euh, sedd lu ci demee ne a ne net waaw yooyu produit yàgg la yooyu mooy xeesal yu yàgg yi te xeesal yu yàgg yooyu. dox net daawul xeesal mais boo ko mosoon a diwoo xet bi neex na te daawoo di xale yi nag xamuñu ko. waaw moom laa lay wax léegi xam nga jamono dafa évoluer ba tax na léegi lu njëkk ba ak léegi bokkatul léegi yëpp lépp lu ñuy jaay dañ koy seetu ba xam am na effet secondaire wala aful say amul effet secondaire tey lépp lu ñu lay jox dañuy xool ba xam lii gën na cer wala gënu ceram ndax monde bee changé jamono bee évoluer. est-ce Boulevard. mu ngi am ba léegi. non boobu moom ah gisatu ma gisatu ma ko léegi. loolu yi 2000 yi xam nga. waaw loolu gisatu ma ko moom. loolu sama yaay moom la ma daan diw. ah ok loolu daa. mais dafa safoon. loolu daa xewi. waaw lan moo ko remplacé. lu mel ni Miracle Gold mu ngi fi stade du jeu yooyu mu fi yooyu produit américain yu baax la boo ñëwee fii di nga ko fekk bu neexee. waaw Fatou gis nga li ma ko laaj mu mel ne net net daanaka xale yi xamuñu ko xam naa ne génération 2000 xam génération 2000 xamuñu net. waaw lu ma jaaxal man. yow xamoo net yow zéro. net mu mu xamu ko bàjjan aussi. du ko waaw xam naa. Euh, liñ ci daan taf day vert. day ah, ñu bind si net. mais mais dafay neex. réew bu neex la doon jox te doo weex te du yàq sa yaram. voilà xam naa xale 2000 yi xamuñu ko. net dafa net. net waaw net dafa net waaw. <laughs> ak beneen beneen euh, loo xam ne pomade la doon nekk Pull-Varda la tuddoon dafa safoon sàpp nag. xamoon nga ko. waaw ñoo moog net nag ñoo maase. d'accord yow yow yow <laughs> moog net ñoo maase. lan lañ war a jàpp ci élément. liñ ci war a jàpp mooy que ne euh, laaj naa ko ci produit yi nga xam ne ñoom ñoo koy defar. est-ce que amul loo xam ne dina am effet secondaire peut-être boo koy diwoo mu mën a yàq sa yaram wala nee na ñoom ñoo koy defaral seen bopp ça veut ñoom dañu bëgg kon ku bëgg diw bu baax nga ñëw seet si leen xam naa ñoom lool lañ si jublu beneen bi mooy xam naa euh, bu njëkk ñun buñ ci toll ñun suñu yaay taloon nañu ba dañu doon sangu ba ñu set diwuñu léegi xam naa yaay amatuñu jotu xale yi dañ leen di bàyyi ñooy def duñ la ko wax jaaxal xam nga ma jaaxal ñoom ñoo daa am lu ñu jàng en matière de pharmacie bi ñuy defar ay produits. c'est ça c'est ça loolu laa ko laaj nee naa ko yéen. comme te yéen waaw moom nag nee ñoom dañ leen formé moom nee dañ leen formé ci loolu ba ñoom li ñuy defar. ñan ñoo waaw loolu xam naa après xam naa dinaa du ñàkk ma laajaat ko loolu. ba xam ndax formation bi baax na. ndax <laughs> tey bëri nañu fiy defaral seen bopp diw mhm. c'est ça c'est ça loolu mooy loolu mooy problème bi dëgg la lépp lépp am na ci euh, ay cere nga gis suñu yaay des ñu am ay cere wala yenn uh-huh. moom anti didim <laughs> mais est-ce que est-ce ñoom jigéen ñi si bàyyi xel sax. mais moom moo la mën a weexee moom moo est-ce eh, tamit doo leen eh, seet. damay weex tout le man damay weex maa bëgg weex man. est que net. ko di ko jiwoo. ko faatu net foog ñu indiwaat ko parce que diw bu baax la te du yàq sa yaram te cherul woon sax cherul woon de. mais est-ce dama gis des fois jigéen ñi da ngay gis ko xam naa ah fës dafa am benn diw diw xam ne moom lay diwoo. Mm-hmm. bàjjan gis ko ne moom moom tamit mën na ko diwoo est-ce loolu tamit. non non loolu tamit daf li mu war a jël ak bàjjan ak man bokkul parce que ku nekk ak li nga war a jël sa yaram ba mu ba mu kii la bokkul waaw voilà mais day am ñoo xam ne moom dañuy gis bàjjan diwoo na diw bi mu jik ko rek <laughs> man damay niin man dama yaakaar ne day jaar su ko sin balaa muy ñëw. man naa sangu rek naa sangu rek. <laughs> Ah. kon Feuz ñu ngi lay gërëm. jaajëf li nga am na solo. Oh, kontaan naa ah, yoon mooy daal. waaw nañu xaar lu nekk nag ci Feuz ndax Feuz dina dugg ci rëkk yi dina dugg ci tunnel yi. lu ñu doon nëbb rek Feuz dina ko génne incha allah loolu ci loolu laay gën a wax <laughs> yéen xaar ne lépp. bàjjen du yool balaa ñuy dem ci moom bàjjen tey fi nga génn ñiy lang nii lu mu zéro man nag branché wu. zéro laay ree ak pause. bàjjen liy la. ah mooy yéen leen. ah lox la. yii mooy Baye Fall yi soow mi. <laughs> ii na daanaka soow. yool. aja ngi nuyu mbokku inspecteur spectateur yi nga xam ne. Mm-hmm. ñoo safoo télé Sénégal di ñu seetaan nee naa la ñun ñoo xew ñun la réew mi bëgg kon damay ñaan rek yàlla defal ñu jàmm di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi Jérôme Momo Feuz sama grande la ak faato jërëjëf Badiane sañ sa bi rafet na. <laughs> merci beaucoup aywa yow moom dalal la sa bopp ci weex bi. waaw man moom weex comme que weex naa moom. loo ñu indil ci people tey. alors tey lu ñuy indi avant tout damay nuyu nekk si plateau bi yëpp di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñoo ngi ñuy à chaque fois seen biir émission bu bees tàq Sénégal matinal donc tey lu ñuy indil mooy Youssou Ndour moom lay njëkkee tey jii si sortie bi nga xam ne Korok def na ko si wàllu people côté people bi mooy bi wax si seen famille bu ñu si paree daal di wax kii di Mia Guissé euh, Korok tamit def na benn sortie def benn show bu exceptionnel waaye tamit solin si topp mooy maanaam euh, back to back wala clash entre kii di Ngaaka Blindé ak kii di Aara ñi nga xam ne defoon nañ ko samedi bi passé foofu sa grand théâtre ñi nga xam ne nii ñu bëyti wax na si ñi naan Ngaaka moo gagné ñi naan ëpp biir moo gagné am ñeen ñi nga xam ne si clash bi nga xam ne kon ñu commencé si kii maanaam si classe bi nga xam ne amoon na maanaam si Akhlou Brick ak kii di Ngaaka Blindé donc mu nekkoon classe boo xam ne Sénégal yi bëri ñoo ko xaar parce que ñoom à chaque fois kenn daawu leen fay mais bii moom maanaam tubaab benn tubaab dafa ñëw mu tuddee ko faaf moom moo leen fay ku nekk ñoo ngi dégg si ay situation yi xam ne ku nekk fay na lu tolloog 30 millions. Ah. moo xam nga xam leneen moo xam. ci classe kese euh, donc euh, Régis sànni ma benn bit wax na ko yàqu de. 30 waaw ñoom ah, mais jar nañ ko parce que boo gisee ñoom ñaar euh, depuis deux ans ngi nii ku nekk di classé sa morom te chaque fois ñoom bu ñu classé même pas 24 heures. 1 million de vues 1 million de vues voilà. ngaa xam benn gis nga ko ngaa xam benn cinq sons yu mu teg la yëpp dépasse na un million de vues de même que ñoom aara aara tamit benn performance bi nga xam ne ni gars yi bëri la yaakaaroon day topp si ginnaaw deux heures maanaam xamu woon côté rap boobu donc bii tamit maanaam occasion la woon mu wan ne Sénégalais yi man mën naa rab mën naa gars yi classe bi def nii mën naa ko bu baax a baax donc jour boobu tamit ñu gis leen waa Ngaaka waa Ngaaka indi Ngaaka indi waa Guédiawaye aara aara indi waa mbuur mu nekkoon show bu nga xam ne nii tamit show bu exceptionnel la woon Sénégal yi bari gis nañ seen bopp mu nekk tamit beneen phénomène wala beneen sport bi nga xam ne tamit permettre nañ Sénégal di ko découvrir muy ki boxing donc king si biir king boxing boobu gisoon nañ si ku si mel ni Liss Ndiago ak kii di. Euh, keneen ki le vrai le grand comédien donc je vais Bou Siteu merci beaucoup ñoom ñaar tamit doon na def seen prestation waaye Sénégal li si gën a mooy kii di Ngaaka Blindé ak kii di ak le biir Paydas heureusement joxuwuñ benn verdict maanaam lañ ñoom ñaar dañoo match nul non non non match nul match nul lañ mais suñu waxee combat mais suñu waxee combat clash tey on s'attend à un verdict quand même voilà mbaa la woon nag gisoon nañ ñoom ñaar si élan bu ñu nekk ñëpp bëgguñu kase benn kenn bëgguñu woon maanaam gaañ ngaaka bëgguñu woon tamit gaañ kii bi aara parce que bu fekkee ne maanaam da joxe maanaam ne euh, kii di ngaaka benn moo gañe wala nga ni aara moo gañe rek peut-être dina am si rab galsen lu muy wàññi. peut-être ñoom bëgguñu woon xam na ni rab galsen amoon na benn. kon euh, dañu bàyyi daal fan yi àtte. voilà mais si biir àtte bi fan si ñu bëri da xool à 60 pour cent wala 70 pour cent ñëpp la ni ngaaka benn moo gañe maanaam moo xam si réseaux sociaux yi pour dugg daal la ngaaka mooy hmm. vainqueur même fekkee waa Mbour tamit def na seen affiche bopp ne ñoom waa aara aara moom moo gañe donc ak su ma si doon daal man jàpp naa ni euh, rap Galsen moom moo si gañe non dama ko tàmm dama ko tàmm. ak beneen actualité people. beneen ñu jëm si kii di euh, Mia Guissé moom tamit jour woowu mu ngi foon def benn prestation boo xam ne tamit euh, Sénégal yu bëri kontaanoon na si ça veut dire que moom rek moo fa nekkoon artiste bi nga xamee nii même fekkoon amoon na yeneen artistes yi nga xamee nii ñoo ngi woon foofu di si mel ni benn Ivoirien Ivoirienne donc mais euh, moom daal dafa mel ni moo jël buzz bi. gannaaw bu mu sooy li nga xamee ni lu sexe la donc ñu bëri lañ jàpp dafa sexe mais man boobu neexoon na ma. la neex. dina neex rek bu moom mu toog si plateau bi neex na ko mais après su ma génn si plateau bi loolu neexuma. neexu la non non la. déedéet ñaari moom moo la. mi ngi mel ni affaire contumace beeg contumace beeg. contumace contumace man moom vraiment noonu la. kon y' a deux momos. ah y' a a a ah donc Momadou moom yooyu neexu ko. d'accord mais moom moom. Ah, yooyu neex na ko loolu loolu loolu neex na moom neex na ko envoyé nañ ma image de envoyé nañ ma image de. Ah, envoyé na image ah lii moom ima. ana image bi ah tarkala. neex na la kon moom moo avait raison. Ah, lan moo ci nekk jigéen da ngay jox li mu sol jàpp na ko macha allah. waaw waaye nag c'est que Sénégalais il faut que ñu comprendre aussi les artistes dafa am lu ñuy wax tenue de scène. Hmm. tey Mia Guissé soo demee këram. du li mu sol nii. Mm-hmm. mais nag mais nag euh, je me dis que ne ah, koo xam ne dañ nit ñi dañ lay xool xale yi di la xool. war na am na tamit nooy nooy solo quoi.

maaboo nag ba léegi ñun ñun. voilà mais nañ ko dañu am suñu ay réalité aussi. Sénégalais lii neex na leen. moom am na lu tax mu koy def parce que benn bis maa ngi waxtaan moom mu ni yooyu yëpp peut mu ngi koy dégg. mais am na si bàyyi xel am na ñoo si bàyyi xel. donc tenue bi peut dafa dafa da koy au niveau international gars gën ko mën a seetaan parce que moo def clip say vaccin wala ay mer marinière donc am ñoo xamante ni duñ la duñ la séddaat. pourtant bi muy sol ay vax ak marinière di def musoor sax la ko nit yi. moo tax boobu demul woon. bien sûr demoon na ah, parce que boobu non ne demul dañ ko bëgg. parce que tenue africain la doon sol di wane ne man sama dëkk laa nekk damay consommer local. Mhm. mais ba léegi mën na nekk mais pour man lépp lépp rek nañ ko placer dans ce contexte. ndax tey Mia tey soo ko jëloon mu nekk ambassadrice vax wala yeneen ci elle mhm. euh, a dina jaay produit bi mais nañ man ci man li ma bëgg jàppe mooy fu mu dem show la fa dem defi demul pour wane ne am ay styliste wala affaire yooyu elle était partie pour faire le show. Mhm. donc soo demee pour faire le show tu yaa xam ndax sa baat ak woy bi nga koy defee wala sa tenue la l' importance pour moom mooy dem na def présentation tey xëy na elle fait le buzz. donc moom objectif bu mu amoon. deux objectifs yëpp mën nañoo ne atteindre na ko. donc après très bien lu mu bëggoon comme ni ko Jérôme waxee lu mu bëggoon am na ko xale yu jigéen xale yu góor tamit d'accord na si bu baax a baax sol yi mu nekk noonu comme ni ko Fodé waxee tamit si performance yi mu gis nañ tamit instant moo ngi def performance yoo xam yu am solo la mm-hmm. parce que boo xoolee clip yi muy génne yëpp même bu defee 4 jours day dépasse 1 million de vues ça dire que tey jii mu am na sax ñu ba ñu koy tuddee naan est-ce du nekk l'artiste de l'année euh, ba mooy tuur parce que burul moom nekk kii di Wally Ballago Seck en tout cas ñoom ñaar fu mu toll nii ñoom ñaar ñoo koy xëccoo waaye gëm naa ni moom Mia boo gisee nombre de yu def yëpp parce que ñu ngi xool année bi dépasse na tolloog 50 millions bu boolee clip yi mu boole yëpp ça veut dire fu mu toll nii moo ngi def benn performance bu rëy moo tax kii di lëz diwaan bi bi nga xam euh, na fa ne yëpp moom moo ngi koy classe bi nga xam ne nii rappeurs ñoo ngi koy def yooyu affaire yi jigéen la ça veut dire moom du classante. tey sant beeg tey sant waaw kay. ñoom seen mm. Mm. jërëjëf Momo Youssou di <laughs> <laughs> mbalax moom xam nga kenn daa koon xamee si si wax. a mm-hmm. chaque fois boo doon wax da naan la jëndal médicament Youssou Ndour yi maanaam parti bi lay boole. Mm-hmm. waaye peut comme ni ñu koy waxee lu ëpp tuuru. donc moom tey wax na maanaam si famille bi nga xam ne nii si diggante Abindour Fabintou Zeyna ak kii di Viviane temps yëpp ba ñu amee problème ba barki démb sax lañ mujjee dem euh, maanaam tribunal bañ convoqué kii di Viviane moom tamit heureusement ñibbiwaat na comme ni ñu convoqué woon kii di Abindour moom tamit mu daal di ñibbiwaat këram bañ ko si laajee nag moom nee na am na élément ba sax bu nekk si biir bu fekkee maanaam temps bi kii di Rachid may nañu ko waaw bi nga xamee ni que affaire bi dem na ba coow bi gën a bare man ci laay soog a xool détay ci laay xool détail ma woo abi sama sœur woo sama jarbaat bintu ne leen bëggatuma leen dégg ci coow li ngeen di wax walla dara te depuis boobu déggatuma leen Viviane yaakaar naa ni plainte boobu nga xam ne dégg naa ne def na ko dana ko retiré gi euh, leneen li nga xam nag moom laa bëgg a wax dañ noo yar def ci ñun ay valeur man ma doom taawu kër gi jàng ci loolu lu bare tur bi mag waaye famille bi yëpp jàpp ku nekk contribuer ñu am image boo xamee ni que macha allah kooku duma ma accepter kenn di ko yàq du ma accepter kenn di ko yàq te kenn mënu ko yàq ndax liggéey bu am solo la exemple boo xamee ni la bu am solo comme yeneen famille du ma nangu kenn di ko yàq. donc comme li tubaab di wax le linge sale se lave en famille euh, ñi ngi ci jéego yooyu te yaakaar nañu ne que euh, incha allah lépp dina dellu si normal ndax loolu moo war te loolu moo mën a ne